fay naa la Modou. maa ngi lay siyaar. naka waar sama waa ji. man man fi ma li ma bëgg a mooy. yow sa bis. sa bis yow. nga toog nga xool sa âge nga xool sa tolluwaay nga xool sa bopp sa bis indi coow Sénégal nga bëre coow am Sénégal ba fépp ci Sénégal dañ ko fay waxtaanee bi nga toogee le lendemain combat bi loolu ban jàngat nga ci waaw sant yàlla rek Modou Mbaye ndax boo xoolee ñun ay xale nañ bu ma juumalee samay xale euh, samay morom maa si njëkk a si kaw mais loolu sant yal ak sama âge waaw loolu dama koy sant yàlla waaw loolu moom dama si sant yàlla bu baax a baax di nuyu waa Caaray Géej aw ma seen fay waa Caalaan Jonwaar ñoo jor Falya So Basar Basur waa Ngajor ah waa Faoy waa Diofior waa Nangaan Samb ah waa waa Marfa Bako man sulu man Lodj. ah ñëpp daal maa ngi nuyu ñëpp waa Nangaan Samb waa Mbeel ngi waa surtout waa Kaolack tamit ak waa. ñooñu nga lim ñooñu nga lim muy muy il des il du Saloum beeg ñi ci des. mais ñi ma tàllal micro ñëpp dañ ne ma laa jógee kii ne ma Bassar laa jógee sa relation ak ñoom lan la. waa mais xam nga doon xale nekkoon fa di bëri si dëkk yooyu. waaw di bëri si dëkk yooyu ba tey jii ñu ah, def ay ay fan si club ak yëpp ñëpp ñëw si su ma waa Joal surtout waa Kaolack waa Kaolack boo xoolee ñaari kaar jóge na fi boo xoolee Joal biis ak kar jóge na fa boo xoolee Thialane waxi noppi biis jóge na fa Dionewar waxi noppi kon loolu sant yàlla la ndax ñun doon nañ xale nekk suñu yoon di liggéey waaw lépp sant yàlla la daal waaw. nga bëre si. nga bëre ci niveau boo xam comme ni nga ko waxee ci say morom yow yaa fa njëkk a yegg si bi ngay ñëw psychologiquement pare woon nga ci niveau bi nga jëm si. waaw pare naa si nag boo xoolee ndax ñun lamb ñuy def mooy li may wax lamb maa ko moom ndax damaa saf lamb ndax damay yëngal lamb les amateurs yi soxla dama leen koy jox bëre bi dama koy def te damay duy ba mu del waaw kon loolu lépp sant yàlla. ndax man dama bokk si làmb waaw. macha allah nga ñëw ci sa biir la ci sa làmb nga ñëw ci biir combat bi arbitre bi sifflé nga jox cër trop sa adversaire laax ba bi mu doxee sa kaw da ngaa arrière lu tax. waaw mais xam nga làmb la rek ak nooy préparé adversaire bu ne noo koy préparé waaw ndax ñun moom ku ñu xam xam na ñun du ñu arriéral mbër non non mais làmb la ñun dañuy làmb fontewuñu waaw lu làmb laaj dama koy def. ndax loolu la laajoo mënumaa liggéey beneen liggéey lu dul lamb lamb lu ma am ginnaaw yàlla tey moo ma ko may kon man làmb lu mu laaj dama koy def waaw lu mu laaj pour am ndam dama koy def waaw. ñu ñëw ci foofu nga arrière ngeen bëri fa litige am fa coow am fa coow li bëri Sénégal ñëpp di wax mais yow ma dégg la nga am benn wax boo ne après man déglu naa wax bi aussi bi ma ko analyser dama ni xel mën na koo nangu parce que trois appui la fii quatre lu tax loolu. waaw mais xam nga lu ma lay wax rek ñun moom dem na équipe nationale ndax trois appui jël la xam nga lu ma expliqué kon yàgg nañ kaa. pratiquer doonul tey mais xëj na mooy li may wax rek euh, làmb la làmb la euh, jox nañ ko CNG victoire bi xam nga nu expliqué mais man daan naa ko ba toog loolu moo amoon solo te def naa ko. bi ngay bi am ndam. maa am ndam dem fête ak samay sama waa dëkk ba léegi sama waa dëkk ndam na ñuy wax. ñu ngi feetu ñu ngi feetu mais ak nu mu mën demee tey jii waa CNG moom lañ jox ndam li. waa règlement moom lañ ko ko jox dama koy nangu. di ko félicité si loolu. mais maa ko daan ba toog si kawam. xam nga ni sa digganteeg moom jeexagul. waa jeexagul nag dinañ dajewaat si kanam. waa xam naa ko ndax lamb mooy li ma lay wax rek lamb coola. moom may mooy li may wax rek day ji boo xoolee lamb jooju daa wala leer nañ. <laughs> daa war a leer nañ. bu baax. voilà te day leer nag incha allah. Reug Reug Sa dafa war a leer nañ. leer nañ daa war leer nañ. benn chute kenn toog ci kaw moroom. exact loolu la war a def mais man ñaari sit moom neexuma quoi. non non. <laughs> <laughs> dëgg la bëre nga ak Sa Thiès ba pare. Balla Gaye a fa sa mag la war na laa may chance la Daguerre fa sa mag la war na laa may chance lool. waaw mooy li may wax rek ay ñooñu ay champion nañ. Hmm. surtout Balla Gaye maanaam coow am na suñu diggante. tey damay ah. nit. dina maanaam nit dina tax loo maanaam tey jii lu ma la ko mën a expliquer mooy maanaam doomu aadama dina dina tax kenn wax dara ci loo xam ne tey jii wóoru ko xam nga lu ma expliquer muy Fils laay wax man moo tax ma génn wax mais Balla ku ko xam xam ne maa moom xam na ma bu baax xam na nit ku baax la ndax làmb la woon coo jéena bu jeexee rek jéena di ko jégalu di ko baalu àq si loolu ma ko wax waaw moom xam na man xam naa. yàlla suñu borom xam diggante du ci télévision ngeen. voilà loolu la quoi. bien loolu la maa ngi koy jégalu waaw. mais yaa ngi koy jégalu mais bëgg nga bëre ak moom. bëgg naa bëre ak ndax may na booy ñaa sens. waaw waaw man na ma man. xale nga bu ma mayee sens ma jël. waaw budul baal la mais mais man daal budul baal la non baal la moom <laughs> budul baal la ma xool ah mais. la dëgër moom la dëgër moom ñemewu ma quoi. kooku moom nawe la quoi nawe xam nga nawe mooy lan. nawe nawe mooy maanaam sib ceeb. yow bëgg nga nawe da ngay lekk nawe. non bëgguma nawe. yow da ngay lekk nawe. dama ko lekk de. yow da ngay lekk nawe. nawe daa lewet nawe daa lewet. kenn du ko lekk ah kenn du ko lekk waaw ah, na ñëw comme comme comme maanaam. la dëgg yow kii yële. comme que moom maanaam nawe la. non man xam man du ma wax ak nawe quoi bëgguma nawe man du ma lekk nawe. kaani nga bëgg. non kaani gu saf saf laa bëgg. Eh, yow yabaate nga de. non si kaani gu saf saf la bëgg. gis naa fi tamit benn njool. waaw Tapha Tine champion la. ndax ndax boo xoolee wax na lu rafet. si ñun man ak Sathies ndax boo xoolee mbër mu mag noonu la war a comporté mbër mu wax noonu la war a waxee ndax ñoom seen wàll wëy na leen fi dese bëreewut. te dañ leen may chance ba ñu egsi dañ leen may chance ba ñu kon yoon la tamit ñu ñaan ñu may ñu chance muy Gris doo muy muy muy Gris Bordeaux muy Tapha muy Balla Gaye commencé may waaw non Lac de Guiers Lac de Guiers bugguma ko nawe la ah. Ah, ah bugguma ko kenn buggu ko voilà xam nga lu ma expliqué ñett ñoo ma lay expliqué ñett ñooñu la laa bëgg ñu may ma chance waaw commencé nga am xaalis ci ah, maa ngi sant yàlla waaw ndax mooy la may wax rek man maay seul booy boo xam ne mu ngi fay ko ay millions ex ex si si kon loolu dama koy sant yàlla bu baax a baax. xam xam naa ko bu baax. xam nga dëkk boobu rek a déggagul roi des arènes ci dëkku làmb yi. incha allah loolu rek laa leen desal te kat si kattanu suñu borom dinaa koy indi bu soobee suñu borom loolu moom maa leen ko promettre incha allah. man damaa gëm sama bopp Modou Mbaye ndax lu ma mënti am sama gëm-gëm moo ma ko may. wallaay laajim. lu ma waaw sama mag sama xarit ah. waaw di koy ñaanal yàlla suñu borom defal kandam lu wér ndax. mooy li may wax rek sunu grand la bu ñu xewlee di ciy ñëw kon moom bu xewloon fii ba kuri kara damay taal sama moto dem maa ngi koy ñaanal yaa sunu borom defal ka ndam waaw. kontaan naa si bu baax a baax di jégalu nag ñëpp bu ma limee damay juma muy muy maanaam ñoo xam ne tey jii maanaam man waxuma sama nit ñoo wax. muy Moussa loolu dara loolu ci lamb la bokk. si lamb la bokk ñun chaque jour wax ñu loolu <laughs> si lamb la bokk ñëpp dimanche bii di ñëw dañ ñuy wax. waaw si lamb la bokk day baax day baax mbër mi muy jégalu. kañ ngay ñëw léegi ci Père Tapha Gueye kenn ma wax ko mu woo la. aar wuñ ko bëggee rek incha allah. kontaan nañ rek li ñu wax rek. <laughs> jaajëf eh, merci kontaan naa jaajëf. waaw gannaaw bi ñu sant si bi sant suñu ñaari waajur. dañoo nekk ay xale liggéey. ay grand frère yor ñu ñu si yoon di ñu liggéey loo. maa ngi sant sama père Adjuma Diouf. di sama waa koñ bu baax a baax gars yi jàpp nañ ci. booy dama góob doole. mais combat bi daa yàgg. waaw combat bi Thank you. depuis 2017 pratiquement chaque année ñu pare na loo ma benn zone chaque année ñu dem au niveau des lycées def fa loo xamante ne nii jeunes yi nañ si gis seen bopp ba gis nga bi démb tey ñoo nekkoon parrain final régional bi mu opposé benn équipe bu Paos Koto ak benn équipe bu Guinguinéo finalement Guinguinéo gagné moo tax tey jii nag ñu clôturer week sportif bii nii avec ce grand combat de lutte bi nga xam invité nañ si champion yëpp pour wane ne tey jii nag Kaolack mooy capitale de la lutte sénégalaise. sa dafa mel ni yamul ci waa Kaolack wala jeunesse su Kaolack kase ndax gis naa fi Boy Niang gis naa fi Tapha gis naa fi Reug Reug mu mel ni ñoom aussi ñoom ñi nekk ci sport am na lu am solo loo seq. waaw loolu la rek xam nga lii loolu dañuy fësal xam nga boo xoolee société bu mel ni senele donc nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom donc ñu def ko mu nekk société boo xam ne ñëpp la fi war